seeti ki nga xam ne mooy Pape Samba Boub réunion bi nag ci ma la woon vingt heures ba minuit ñoom Samuel Sarr sama copain ñoom ñëpp démb foofu tàngoon na neex na ay ca ñu xeeli Pape Samba Boub jërëjëf jërëjëf du ñëpp mën a taxaw tey ci bés bi Habib Sy di jolof jolof Samuel Sarr ñun ñii nga xam ne Ablaye Wade moo ñu tàggat ci politique PDS authentique mooy ñi nga xam ne dañoo gëwoon Ablaye Wade depuis 1974 ba gën président Ablaye Wade yoo ñu waxal amul plan A amul plan B amul plan K amul plan S yow sa bopp ñun yow nañu gëm yaa ñu tàggat ci politique yaa ñu may doole réew mi bu mu san toll fii mais président Macky Sall dafa tollak ay waa PDS yoo xam ne amuñu fula Ablaye Wade musul may on yota président Macky président Abdou Diouf di ko di ko bu président Abdou Diouf mu san def lu ndaw génn nañ ci télé bi rayante policier rayante ñi nga xam ne ñoo ñuy aaye marche Habib Sy Samuel Sarr mais dañu nekk PDS mais nekkatuñu PDS ah Omar Sarr bi ñu jël teg ko mu jiite parti bi jiital kollam jiital ay lexam fu ñu dem réunion séminaire di jël xaalis parti bi di doon ci ay hôtel di ñëw naan c'est ça comme ça c'est pas ça ñun ñooñu gëmuñu leen ah! Karim Wade nag mënu nekk suñu candidat te teguñu ko bët ah, du Ablaye Wade moo ñuy seetal ki ñu bëgg dafa jot parti bi instance yi toog waxtaan ñu xool ki ñu doy ki am fit ñu daal di koy fal Macky Sall niñ ko may Ablaye Wade mosu ko may koo xam ne mës na bokk ak yow langue politique mais li Macky Sall def fan yëpp ci dëkk bi mais xanaa Omar Sarr da ci ànd amul yënga-yëngal mais amul opposant gisuñu ko li leen naqari laa bëgg ngeen wax ko Samuel mais je dis amul opposant y en a bi lu la ñu def te ñun on est jeune góor gi lim ñu bàyyiloon fii mu ngi fii mais problème bi qui se pose à l'heure actuelle on on n'a pas solide et devait être solide on devait être euh, des gens qui, qui à l'heure actuelle parce que le, le travail ne marche pas on, actuellement les gens sont de dormir est-ce que vous donc on peut pas nous faire savoir que ça marche ou que ça marche pas il faut qu'on sache qu'il y d'accord Habib Sy mais c'est vrai li nga wax c'est vrai c'est tellement bi mu fi nekkee am na loo xam ne daawuñu ko nangu Ablaye Wade bi mu fi nekkee ñëpp xam nañ ne opposant bu farouche la woon. dëgg la ñun nous sommes le PDS authentique dëgg la nous sommes le PDS authentique dëgg la PDS ñun ñoo tax ñuy wax. dëgg la Pape Samba Boub il s'est donné corps et âme. ñaata kër la jaay. ñaata ñaata terrain la jaay. ñaata ñaata oto la jaay. ñaata Samuel Sarr ñaata tool la jaay. ñu joxe lu ne ngir PDS am doole. mais Omar Sarr. mais Omar Sarr li mu nekkee moo dul yoon. ku nekk suñu kanam jiital sa koll jiital sa lex. ànd ak ay jongama ñuy wër dëkk bi di woote ñoom ñooy PDS dama ne PDS dëgg dindiwul dama ne PDS dëgg mooy ñun ñun amul ay Karim Wade doomu Ablaye Wade la war a taxaw suñu kanam duñu ñun gisuñu ñun lu ñu gis mooy xam-xam bi Ablaye Wade amoon ngëm-ngëm bi Ablaye Wade amoon fit bi Ablaye Wade amoon amul benn opposant bu ñeme woon dara ak Ablaye Wade Ablaye Wade la ñu namm ci biir ay xeexam xam nañ ne amatul kattan ngeen doole waaye am na ay doom dama ne dafa jot ñu yëngu-yëngal mais qu'est-ce que ça veut dire ça yàlla Omar jiital kollu. ay jiital lex. dama ne man papa Samba Mbuub. dañoo jël mais man may mais man. wax leen papa Samba Mboup. papa Samba Mboup. neel papa Samba Mboup. papa Samba Mboup. dama ne. déglu ma déglu ma man du ma tapet. dëgg la maa ne Ablaye Wade sa doom yaa ko jur. dëgg la mais doo ñu ko imposer parce que ñun gëmuñu Karim. dëgg la dëgg la yow nañu gëm. mais balaa ngay gëm nit ki gis ko. te ñun tey la ñu gën a jàpp Ablaye Wade te ñu gën du ñu ay traître ah. ñun du ñu ay warkat de bés bu waa PDS génnewul Omar Sarr dinañ demal suñu liste bopp te dinañ demal suñu day tas. lan la lan la lan la. ñun en tout cas on va pas se laisser marcher sur les pieds. oui nguur gi fi nekk defu fi dara ñun PDS ku ñu xam-xam ne réew mi ñun ñun lañ bëgg. oui réew mi am na ay dem bëgg. ana Aïda Mbodj xamatul fu muy taxaw Farba Senghor ngi nit ci ñun la àndal ah. mais Farba xolbam dafa jeex ku mos a tudd Ablaye Wade tudd Farba Ngom Farba Senghor Farba Senghor Farba Senghor jooy na guddeeg bëccëg ñun ñooy vrai doomu Ablaye Wade ñun ñooy tàngal ànd. ah Wara Sarr ak ñoo ànd. moo ko Omar ñoo ànd. Ah? dama ne est am na ñu nekk PDS ñoo xam ne dañu fay nekk mais seen xol nekkatu fi. dama ñu sommes pas là pour Macky Sall. on est là pour déloger Macky Sall. mais qu'est-ce que dire. lan mooy loolu. ah Ablaye Wade moo ñu tàmmaloon reer guddi gu neex. cere yu neex. waaw ndawal gu neex. tukki gu neex. joxe bee màkka. dëgg la joxe addiya. dëgg la dimbali doomu aadama yi. mais buñ ko pertee ñoom ñoo tax ñu. perte ko te man namm naa dugal loxo ci poos bu xi génn dimbali ko tey lekkatuñ ba géex. Ah. lekkatuñu miss yi lépp lañ nam dematuñu màkk dañoo nam dara ñun amatuñu passeport diplomate jàppalatuñu doomu aadama dematuñu pharmacie dematuñu hôpital dimbali nit ñi loolu mooy jeex mooy jeex dakk lan la Omar Sarr laañ wax bëggatuñ ko man maa ko wax Omar Sarr bëggatuñ la ci biti Omar Sarr ca biti Omar Sarr ca biti Omar Sarr sëbiti sëbiti biti biti Omar Sarr sëbiti Omar Sarr sëbiti Omar Sarr sëbiti eh, Omar Sarr sëbiti déet waay déet waay déet waay déet waay déet waay yow Omar Sarr sëbiti Omar Sarr sëbiti way Omar Sarr